ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي wa mbokk yi seetaan seen seen GMT ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi rawatina guddi gu tedd gi ñu nekk di guddik laylatul xadr ñu koy magal fii ci Touba di am mbégte bu baax a baax tey nag ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne mi ngi koy def ci bi koor gi tàmbulee ba léegi tey jii di fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor dëppoo ak guddig Laylatul Xadar ni ma ko waxee léegi di guddig fukk ak juróom-ñaar euh, Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu boroom liggéey bi tey jii nag taamu woon ngir ñëw seet si liggéey bi ñuy defal Serigne Touba ngir seereel ko borom euh, xam ngeen ne. Euh, waajaloon na ko bu baax a baax a baax ngir ñëw fi waaye tey jii moo am ay gan yu tedd yoo xam ne ñoom la amoon muy njabootuk Cheikh Sidiya baaba euh, ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Murtani ñëwoon seetsi ko mu nekkoon ak ñoom di waxtaan ak ñoom loolu tax na fonkum fonk liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak fonkum fonk liggéey bii nga xam ne ñu ngi dundal weeru koor fii ci jumaa ji tax mu tànn ay rakkam yi sës ci moom di porte problème di Cheikh Mahmoudul Basir mu Cheikh Abdoul Xaadir boole ko ak sëriñ Mamor Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal di magam di mag magi Cheikh dul basiir boole ko tamit ak sëriñ Abibu Mbacke moom Cheikh dul faadal ak mbooloo mu bëree bëree bëree bëri ñoo xam ne neewoon na leen dem leen ngeen teewal ma ci jumaa ji xoolal ma liggéey bi nga xam ne day daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi koy defal sëriñ bi te santal ma leen kañal kañ leen sant mboolem tamit taalibe yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ak fu ñu mën a nekk moo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew bi nga xamee nag Cheikh Abdul basiir ñëw na ànd ak magam yu baax yooyu mu àndal ki nga xam ne mooy kilifa liggéey bi di jëwri ni daayira Muxaddamatul Xidma di Sëriñ Afiya Buso ànd nañ ñu dugg ci biir leeral ko liggéey bi wax ko ne ko mboolem lu nit di jëfandikoo moo ak lu mën a doon maanaam ci xeet yi nga xam ne ndaw ndaw dañ koy jëfandikoo te war koo def seen kër loolu la ca gën la ñuy teg fii ci ndogu yi nga xam ne moom la ñuy def fii ci Touba. leeral ko it ne ko ci ñaari mbir la la aju am na ci wet goo xam ne dañuy berndeel ruu yi am wet goo xam ne dañuy berndeel jëmm yi ki ñuy berndeel ruu yi mooy waxtaan yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def bu juróomi waxtu tegalee fanweeri minute te tëral ko ci ay tomb yu wuute muy ay mawduxaat ay durusul fiqi ay fatawa nañ ko Cheikh Abdul Basir mi doonoon ndawul sëriñ bi xamal ko ne ko buñ xaymaa ñi fiy doge si daanaka dina mat ñetti junni léeg-léeg ajjuma sax mu mat ñeenti junni lu mel ne suba xëy na dañ fi séntu mbooloo mu bëri mbooloo mi nga xam ne ñoom la daayira Muqaddamatul ma tànn nga xam ne li tàmbulee fajar bañ naafila ba noppi ñu ngi fiy liggéey boo ko xaymaa mat na juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom yoo xam ne ñu ngi fi di liggéey ñii ñi ngi ci raxas bi ci fajar ndax xam nga ne lu juróom ñetti junni wala ñeenti junni di ñu fiy doge kon kaas dana bëri palaat yi dana bari jumtuwaay dana bëri tarmuus ak yooyu kon mbooloom bari ñoo koy ñoo koy ñoo koy raxas loolu di liggéey bu am solo ak ñi nga xam ne ñooy ñëw lal muket yi nettoyé euh, tapp yi ñi nga xam ne ñooy defar euh, ya cay dem mburu yaag saucisson yaag ya ca aju yëpp loolu mbooloo bari bëri ñoo koy liggéey loolu nag dafay xaajalikoo ci ay góor ak ay jigéen ndax daayira Muxaddamatul Xidma xam nga ne lépp lu muy def lam ciy jiital mooy war mooy barab bi ak defee ko ni ko lislaam santaane moo tax fépp fu jigéen di nekk rek jigéen a fay nekk di ko di ko di ko di ko di ko jubbanti fu góor war a nekk it góor a fay nekk loolu moo tax soo ko dee xool mat nañ juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom leeral nañ ko Cheikh Amadou Basir. liggéey baa ngi nii liggéey baa ngi nii waaw ah. liggéey bi nag dafa dafa dafa. Euh, euh, aju ci ñetti mbir wala ñaar bi ci njëkk mooy waxtaani diine yi gis nga ko mu demee waxtaan diine yi am na fanweeri waxtaan yoo xam ne fukki waxtaan ak ñaar mi ngi ci yoo xam ne ay mawduhaat la am fukki dars ak benn am ay ñeenti fatawa moom nga dégg noonu mu muy jàll suñ noppee nag fi ndaw ko ndaay yi mi ngi nii lépp loo xam ne rek sëriñ bi euh, ab taalibe nit da koy soxla ci lu muy jëfandikoo ci këram nga xam ne day mel nam gënee moom la ñu teg fii ndax sëriñ bi kat li gën lañ ko war a ko war a lañ ko a defal soo ko dee xool buñ ko xaymaa lu man ñetti junniy nit ak nangam danañ fi doge bët bu set bis bi yàlla sàkk liggéey bii nag ba ngeen koy tàmbali boobu néew na loolu ndax jëf bu baax bada al islam xarit moo ci xew tumuraan ko woon néew loolu waaye bu ñëw di ko ànd jëf waxtu la itam jëfam ak jëmmam di ci mm-hmm. ba yàlla def àdduna xat ko mm-hmm. jatt ko responsabilité nekk ci kaw mm-hmm. mu yónnee waaye jëfam man ko gën a gën kon Cheikh Mamadou Mountakha nee na ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci li xam ne xam na ne boppam la koy def waaye ñu ngi ko ci seeral ak cant ci turu sëñ Maam ak ci turu sëñ bi mu àndal sëñ Afia itam ñu ngi leen santaat bu baax di gërëm mm-hmm. Mm-hmm. ndax yow jàmbaar nga lool mm-hmm. ndax li ñu xam ci yow sax mu nii su ko seet alhamdulilah alhamdulilah waaye nag yàlla mi nga xam ne moom rek moo doy seere moom la ñuy soxla mu seere jëf june sëkk seer waaye yàlla na kattan wéral la amiin way yàgg ko bokk yi nga ko ànd amiin way yàgg ko teel yi nga ko ànd ngeen yàgg ko jëf amiin way yàgg seen day tawfiq ak ngërëm bu teel jëf salaamaaleykum sëriñ Afia nag mi nga xam ne mooy jëwriñ ji nee na Cheikh Amadou Bassir yow mi fi tegal sëñ Muntaxa xamalal sëriñ bi ne ko wax dëgg yàlla yéen ñu yebal sax ëpp na ñun ay liggéeykati sëriñ Touba rek lañ yoo xam ne dañ koy seereel sëriñ bi kon sant nañ bu baax a baax ci teew gi gërëm nañ bu baax ñu ngi koy ñaanal nag. donc sëriñ bi ñu ngi dalal yow bu baax te sant bu baax tey gërëm. kon Cheikh Amadou Bassir kon ñu ngi lay dalal yow bu baax. ak mbokk yu baax yi nga xam ni Maam Moor ak sëñ Habib ak mbokk yu baax yi nga xam di wax ne seen tawaay fii xam nañ ko ak tawaayu sëriñ sax mën nañu wax ne seen tawaay moo gën a tolloo ak ñun ndax sëñ bi dañ ko yërëm lool wax dëgg ci mag mu woor ba nag yi ngay yéeg ay escalier te jëf ji xam nañ ne bu ko tegee bët yëg na ko bu ko tegul bët yëg na ko kon bu dee jabare ngeen xoolal ko ko rek doon sëkk wala sax ëpp na ko kon muy ñu ngi koy delloo nuyoo bu baax te di ko delloo sant di ko delloo gërëm ni ñu ko waxoon rek ci gàmmu gi lépp lu nu sant da ko àndul la ñu am ko dañu ko bëggee mu yaru coono ba bàyyi na ndam li liggéey Sëñ Tuubaa maamel noonu kon lii ni ñu ko waxee euh, bépp coono am na ci mbooloo bari na ci liggéey bari ci waaye lépp dara gësewu ci lépp yomb ci ak yombalam kon ñu ngi koy sant di gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi lool ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu def ko doon ànd ko moom li ñaan nag nga dogal mbooloo mi nga xam ne ñoo ciy xëy di ci gont muy ndaw yi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp te bu jullee ñëw ba ñu fay jóge onze di guddi mu mat juróomi téeméer ak fanweer yoo xam ne ci li ñuy liggéey ci lañu yàlla bu set ak ñi nga xam ñoo joxe xéewal yi nga xam ne moom lañ koy defee ñëpp ngeen bëgg leen ñaanal sëñ bu nangul leen ba ku nekk sa yéene nga man ko ni ko bëggee loolu daal mooy sas bi ñëpp teew ko déwén kon nekk sa bopp ak yokku ci pas-pas ci sëriñ te di sàkku ci moom mu ñaanal taalibe yi sëriñ Tuubaa yi membre yi Muxaddamatul Xidma ak mboolem taalibe boo xam ne dafay participer ci liggéey bi moo xam opérateur économique moo xam membre yi daayira bi ba ci kilifa yi diine yi muy njabootu sëriñ bi te sëriñ bi ci boppam jiitu ci mook ay rakkam ak i doom ak ñi nekk biir réew mi ak bitim réew ak continent buñ mën a nekk ñooñu daal sëriñ bi eh, tañ na leen ñaanal ñaanal na leen eh, ñaax leen soññ daayira Muxaddamatul Xidma ci ñu bañ a gis seen bopp ci liggéey bi xam ne liggéeyal sëriñ Tuubaa ku koy def te gis na tegu la ci yoon saytaane faw mu jéem a ñëw ngir jéem laa wan ne li ngay def am na solo nga naaw ko wala li ngay def rëy na nga yéem ko te loolu lépp day yàq jëf kon li ñuy def lu nekk rek eh, dañ koy seereel sëriñ bi seereel ku sunu borom moom mi nga xam ne mooy borom fay. ginaaw buñ noppee nag euh, ànd nañ tamit dem ca sëriñ ba yët ko addiyee yoo xam ne bàyyikoo na ci yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo fii ci sëriñ ba mu mu bég ci lool waxtaan ak ñun tatagal ñu ñaanal ñu yaakaar. am na seen yitte bu baax jërëjëf jërëjëf jëfati taxawaay bi rek doyoon nañu lépp. doy na ci lépp. suñ suñ seetal ngeen suñu xol seet daal ngeen suñu xel. jërëjëf ndax liggéey liggéey bii rek ka fi nekk te xam naa ne moom dong mooy seen itte. jërëjëf loolu nag loolu rek fajoon na sama aju man. waaw loolu rek fajoon na sama aju. jërëjëf loolu moom taw yéen yéen da a bokk ci pàkkuteef sëñ bi rek. waaw loolu pàkkuteef sëñ bi rek la. waxtu nekk daal ñu ngi lay fasal ci liggéey bi. nga nga rëmal sëñ Tuubaa taanu ko mu ci yàlla yàgg la fi wéral la dëpp la kàttan. dañ tàllal ñëpp waaw amin amin amin آمين آمين jërëjëf kon daal ci tënk suñ doon suñ doon xayma tey bis bi bis la bu am solo ci ñun bu rëy rëy rëy ci Muxaddamatul Xidma ndax nit su fekkee dafay liggéey ba ki koy liggéeyloo ne dafay ñëw seet si liggéey bi looloon lu rëy rëy la léegi nii rek maa ngi koy wax Cheikh Amadou Basir bi mu ñëw ñu ne ko ñun daal buñ gisee mbooloo mi di rëg-rëg di ñëw ak a dog waxtu dog jot man ñun suñ xel du dem ci lenn lu dul rek sëriñ bi bi mu nekkee làmbari Lambaréné nga xam ne dog dafa jot amul dara lu mu jëfandikoo lu dul xobi garab la rocc di ko tucc tuccal ba man cee muucu loo xam ne daf koy jàllale tey ñeenti junniy nit wala ñetti junniy nit di dajaloo fii ci barabam di dogee li gën ci ay ñam loolu xam nga ne gàccaal na noon yi nga ko doon fexeel xam nga ne loolu sëriñ bi kon suñu borom fay na ko ba wis ko te loolu ñu koy defee ci jumaa ji boo demoon ci mboolem barab yi ci biir Touba ba nga dem Ndakaaru wala nga dem ci biir réew mi ak bitim réew foo mën a dem noona la barab yi sëriñ Touba yi ak jumaa yi sëriñ Touba yi di def ci ko taatane fii ci jumaa ju mag ji nga xam ne lu ñu fi def lu nekk rek taalibe yi dañ koy roy te loolu mooy doxeenu sëriñ bi ci waxtu wu nekk loolu tamit ñun moom rek lañu gis loolu dong la gis ci liggéey bi kon dal bis la bu rëy rëy boo xam ne rëy na ci muxaadimatul ma kon li ñaan rek mooy sunu borom defal ñu ci taw tawfeex ak taysiir te faj suñuy aajo saahir ak batin ci darajay xaadim rasul kon daal bokk lii moo doonoon visite bi nga xam ne euh, ak ñëw gi nga xam ne Cheikh Amadou Basir mi porte lu sëriñ bi ñëwoon na fii ci jumaa ji di nemmiku liggéey bi ci déggalul Cheikh Amadou Muntaxa mi nga xam ne moo fi waroon a teew te teewoon fi daaw ak daaw jeek nag muy daaw jéeg ak daaw xam ngeen gis ngeen ne sëriñ bi moo daa ñëwal boppam bu doonutoon ganam yooyu moo koy def ni mu ko daa def waaye kim ñu yabalal wax dëgg yàlla doy ñu sëkk ñim ñu yabalal doy nañu sëkk rëy na ci ñun lool yàlla leen fi yàlla yàggal te wéral leen bi barakati xaadim rasul ñu ngi tënk kàddu yi foofu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi